Bienvenue sur Salam mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di amaan mbégte lu bare bare jàkkaarloo ki yéen fii ci Amsa TV di leen andil seen émission bi di euh, avocat émission bi nag nekk na émission bi nga xamante ni ñépp a ko bokk àddina bi yëpp fépp foo xamante ni doomu aadama ma nga fa rek nekk ak kaa boo xamante ni mi ngi ci moom yàgg ak moom wala ci jamono bi ñuy tourner émission bi ak jamono bi nga xamante ne ci la émission bi di daw yaa ngi dund kaa boobu wala nga dund ko booba yàgg na booba ngay xale ba léegi wala nga gis ku koy dund en tout cas na nekk loo xamante ne lu wér la rek te wóor mën nga ñoo contacter ci numéro yooyu mooy sant di gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ne saa su nekk fu ñu mën a nekk ci àddina bi rek ñu ngi ñuy woo di ñu wax seeni cas di leen gërëm bu baax ci te boobu ñu am ba di ñu dénk loolu nga xam ni yàgg na ci ñoom di dox ci ñoom wóoluwuñu mm, partagé ko ak benn doomu aadama bi ñëw seetaanee lii di am Amsa TV xool seen émission avocat mu doy leen ñu di ñu contacter saa su nekk di ñu wax li nga xamante ne mooy cas yooyu noonu ñu ngi leen di gërëm di encouragé waat képp koo xamante ni yaa ngi seetaan émission bi rek nga xam ne sa émission la yaa ko moom li nekk ci yow booba ak léegi. wóoluwoo ci yaay wóoluwoo ci papa wala nga jàpp ni boo ko waxee sa gàcce lay doon yow wooteel ci numéro yooyu. bu ko defee di nga ñu jot boo ñu jotee waxtaanee ko ak ñun lépp ci sutura kenn du xam kaa bi ki ko dund dañuy waxtaan rek bu ko defee Serigne Moustapha ci boppam ca njeexital ba te bu leen ko bàyyi ni ngeen ko jeexitalu émission ba incha allah dina leen ci indil ay solution yu ama am solo yoo xamante ni boo ko partagé ak ñun ba nga seetaan solution yooyu le doo réccu li nga xamante ni moo taxoon ngay partagé ak ñun sa kaa yooyu. tey nag cas bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee nekk kaa bu doy waar xam naa ni sax dingeen jàpp ni ñun ci maaman yi rek lañuy faral di waxtaan ci cas yi waaye demeewul noonu kenn ku ci nekk cas boo xamante ni moom nga woote joxe ko rek bu ñuy waxtaan dañ ciy daal di waxtaan ndax lépp ñëpp la ñëpp ko bokk. kaa bi nag mu amati koo xamante ni xam naa ni yàlla dénk na ko tuuti xam-xam mu nekk koo xam ne day dugg ci kër yi di sàkku ndimbal. ñu di ko may lekk di ko jàppale ci xaalis ay yére lu mu mën a doon rek lu mu fa fekk bu fekkee fekk na fa borom kër gi wala soxnaam di ko jàppale ci yu mel noonu mu nekk koo xamante ne fu lay dem buntu kër gu mu fëgg rek dafay wax li nga xamante ne moo ko tax a jóg boo ko mënee jàppale nga jàppale ko boo mënee gàntalit nga gàntal ko waaye léeg nit ki dina gàntal nit sax fekk bon taxul soxor taxul waaye àddina bu yàqu day tax mu ragal ba dootul accepté kenn ci biir këram te yu mel nii nga xamante ne mooy kaawu tey bi ñuy waxtaanee da koy waral te ko nit nga yey ndax nit ki fi mu toll nii nit li dal sa xel rek ak li la doy loolu nga war di def surtout ki ngay dugal ci sa biir kër na nekk loo xam ne xool nga ko ba mu dal sa xel amaana sax mën ngaa xool mu dal sa xel nga entrer ko ci sa biir kër ndekete yoo posan la la nga xamante ne moom nga doon daw lépp mu ngi ci moom ñu wax ngeen moytu. doomu aadama yi nga xamante ni ñooy dugg ci seen kër di leen jox loxo ak di toog ak yéen ak di waxtaan ak yéen ak di naan dañ leen di seetal ak yeneen ak yeneen ndaw si nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee nekk na koo xam ne macha allah réglé na boppam regle njabootam toog këram ba koñ bi nga xamante ni foofu la dëkk sax dañ koy woowee tubaab bu ñuul ndax lan réglé gu mu regle boppam ak njabootam bu rombee dina nuyoo bokkul natt demul tuur demul xew demul fenn. mu ngi toog rek ci biir këram nekk ak njabootam farata rek moo koy génnee mbaa mu dem ci lu mu war a dem mbaa mu am lu mu jënd ci boutique bi mu fekk sax jànkam bi nga xamante ne moom la yor ci kër gi wàcc wala yeneen mën nga nekk ci koñ bi toog une semaine doo gis ndaw si ndax maandu gu mu maandu ak yam gu mu yam ci boppam ak ndax ragal gu mu ragal yii nii xew ci àddina bi ndekete yoo yooyu dina ko fekk ba ci biir këram génnee ko fa defloo ko loo xamante ni àddina bi yépp dinañ seede ne kii de lii mu def tey ko ndax lii du jukkoom waa ji dafay ñëw ci biir këram di sàkku ndimbal bu ñëwee mu génne lekk jox ko génne ndox jox ko daanaka paa bi sax mat na ko way wayjur bu góor bu génne jox ko paa bi day toog lekk ba suur naan ba màndi ñaanal ko daal di dem bu ko defee bu subaa bu ñëwaatee day amaat courage mayaat ko lekk mayaat ko ndox mu naan buy dem sax bu amee dara ci weccit day daal di yëkkati jox ko ñu nekkee noonu nekkee noonu ba mu yàgg Euh, paa bi détourné ndaw si bu ñëwee ci kër gi bu ko joxee lekk jox ko naan ba pare di séq ak moom yeneen fu mu ko xoolloo mu xool ko lu mu ko waxloo mu wax ko lu mu ko laaj sax ci loo xamante ne daf ko denc ndaw si dina dem génnee ji ko jox ko lépp ndax ñàkk a tey ak duggante gu mu dugganteeg moom lépp nag mu doon def rekk lu baax di ko may lekk di ko may naan ndax dafa ñëw ci kër gi comme ku doon yalwaan ndekete yoo mbokk yi loolu taxul a jug kii nga xamante ni mu góor gi ñëw ci kër ndaw si. bi loolu amee ndaw si dema dema dem ba talatul boroom këram ndax waa ji même bu demee ñibbi day génn këram moom ndaw si di ko fekk fa mu nekk di nekk ak moom loolu lépp ci ñàkk tey ndax lu baax lu mu doon def. bi mu jëkkër ji demee ba seetlu loolu te xamoon na ni moom soxnaam sëy nañu am nañu ay njaboot mais habitude yi muy gis ci moom mosu koo gis dem bu metti bii muy gis muy dem daawu ko dem mu am ci jaaxle torop mu toog ak ndaw si laaj ko lan nga xamante ni moo waral ngay génn génn yu bari yi te yow bëccëg sax daawu ko génn léegi guddi da ngay génn wala nga génn bëccëg ma ñëw ci kër gi laajte la ñu ni ma ci suba nga génn te kenn xamul fooy dem woote naa seen kër ñu ne nekk ko bii mooy troisième jour. ma bëgg a xam lan moo waral lii ngay def ak fi ngay dem fan la ndaw si wuyuwul jëkkër ji ci li mu koy laaj jëkkër ji dema dema dem ba affaire bi xamatul lu mu koy nurool mu taaj ko taaj yaayam laaj ko lii ngay def nii lan moo la ci xiir ak nan la demee jëkkër ji it saa su nekk mu ngi jiital ne moom soxnaam nekkoon na ki gënoon maandu ci mbedd mi mu dëkk nekkoon na ku gënoon a ci mbedd mi mu dëkk nekkoon na it ci biir këram ku mat li mu doon ndax nekkoon na koo xam ne doon na éduquer loolu njabootam di jël temps di toog ak njabootam lu yàgg di waxtaan ak ñoom di leen xelal saa su nekk boo ñëwee ci kër gi dangay fekk ndaw si ci biir njabootam mu toog di sottante ak ñoom ay xalaat di leen yee ci àddina bi moo tax xuusi ci bu baax dafa jàpp ne rek kii ci li mu nekk am na lu ko bëgg a détourné wala lu muy loo xam ne teyu ko loolu mu njort noonu la demee bi mu xoolee ba toppalu ko ba xam fi muy dem. waa ji mosoon na xelmati paa bi ci biir kër gi ñaari yoon yoo xam ne day ñëw di yelwaan ndaw si di ko sarax bi mu xamee loolu mu woo ko laaj ko waa ji doon ñëw fii di yelwaan te yow saa su ne ngay nekk këram lan moo waral nekk ngay nekk këram ak lan nga séq ak moom ki nga xamante ni sa moroom pàppala mu xamal ko ni sama moroom pàppala waaye moom laa bëgg mu nekk histoire bu doy waar nekk lu metti waa ji fi jëlee na ko kaw jaaxal na ko mu insisté ngir téye jabaram ba sonn mais nit ku nekk li dugg bu fekkee ne tayuloo ko li nga xamante ni moo lay jëfloo jëf ji ngay jëf doo dootul doon yow leneen lay doon waa ji téye na téye nax na nax neexal na neexal mais xaman xam na ne kee gañe na ko mënatul ci loolu dara te sëykat ñaar a koy def bu kenn ki demee ba sigiñu ni mënatul a sëy ak boroom këram borom kër bi ab lu nga ko bëgg-bëgg li muy mën rek mooy jéggal ko mu dem ci jaam mu daal di jéggal ndaw si mu dem bi mu demee ab diir takku ko waaye daf ko mujj topp dem ñibbil ko di nekkaale ak moom fii ñu toog nii di waxtaan mu ngi ànd ak waa ji waaw ndaw si fi mu toll nii nekk na koo xamante ne ñibbili na waa ji moom jëlu ko soxna takku ko kenn nangu ko ko may mais dem na ñibbili ko ci këram nekk ak moom bu xëyee mu xëy ànd ak moom di dem ci marché yi di yalwaan xam nga ni loolu ma ni ndaw si lu mu tay la ndaxte ndaw si fi ko waa ji fekk mooy fi mu ko war a fekk mi ngi amoon boroom këram yor ay njabootam di sëy te yàlla rek tax lépp loo xamante ni war na ko suba ba ngoon mi ngi ci woon détourné na ko indi na ko biir këram nekkaale na ak moom mi ngi wër di yelwaan ci ay marché te ndaw si nekkoon na ku civilisé ku bëgg boppam ku yem ku regle ku bari kersa léegi dafay ànd ak moom ci marché yi di yelwaan pour rek yéen ñëpp ñi nga xamante ni yéen nekk fii Sénégal nekk ci seeni kër am na ñoo xamante ni seeni kër bariwul sax ay nit yaay ji moo fay nekk papa ji moo fay nekk ak doom yi léeg-léeg papa ji dafay xëy liggéeyi bàyyi la fa yow mi nga xam ne yaay soxna si. bu ko defee yow ak sa njaboot yéen a fay nekk sa njaboot bu ñu xëyee dañuy dem jàngi bu ñu demee jàngi yow yaay nekk ci kër gi képp koo xamante ni xamoo ko bul ko ubbil sa kër ndax yu mel nii rek la nit ñi di wër di ko jëf ci këri nit ñi léeg-léeg ni dugg sa kër nuyu la nga tàqalikoo ak sa sago daf lay wax am na loo fi denc wala am na loo fi yore ngay génne di ko jox des fois sa xale góor yi dañ koy faral di def ci video yi pour rek di yee nit ñi lépp li nga xamante ni luy nduru yu mel nii la na ko moytu saay boo xëyee parce que doomu aadama ak ni mu toll nga fexe ba détourné ko nga fexe ba wëlbati xelam mu bàyyi borom këram bi mu dóor sëyal topp la kenn mayu la ko mu ñëw dëkkal la ba pare nangoo ànd ak yow di yalwaan ci ay marché loolu yaakaar naa ne ndaw si lu mu tey ñuy ñaan nag képp koo xamante ni sa xam-xam màcc na jëm ci loolu nga mën a ñaana ndaw si mu dellu siwaat ci boroom këram ak ay njabootam. mbégte lu bare bare jàkkaarloo ki yéen fii ci am Amsa TV di leen andil seen émission bi di euh, avocat émission bi nag. nekk na émission bi nga xamante ne ñëpp a ko bokk àddina bi yëpp fépp foo xamante ni doomu aadama mu nga fa rek nekk ak kaa boo xamante ne mu ngi ci moom yàgg ak moom wala ci jamono bi ñuy tourner émission bi ak jamono bi nga xamante ne ci la émission bi di daw yaa ngi dund kaa boobu. wala nga dund ko booba yàgg na booba ngay xale ba léegi wala nga gis ku koy dund en tout cas na nekk loo xamante ne lu wér la rek te wóor mën nga ñoo contacter ci numéro yooyu mooy sant di gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ne saa su nekk fu ñu mën a nekk ci àddina bi rek ñu ngi ñuy woo di ñu wax seeni cas di leen gërëm bu baax ci kóolute boobu ñu am ba di ñu dénk loolu nga xam ne yàgg na ci ñoom di dox ci ñoom wóoluwuñu mm, partagé ko ak benn doomu aadama bi ñu seetaanee lii di am Amsa TV xool seen émission avocat mu doy leen ñu di ñu contacter ak saa su nekk di ñu wax li nga xamante ne mooy cas yooyu noonu ñu ngi leen di gërëm di encouragé waat képp koo xamante ni yaa ngi seetaan émission bi rek nga xam ne sa émission la yaa ko moom li nekk ci yow booba ak léegi wóoluwoo ci yaay wóoluwoo ci papa wala nga jàpp ni boo ko waxee sa gàcce lay doon yow wooteel ci numéro yooyu. bu ko defee di nga ñu jot boo ñu jotee waxtaanee ko ak ñun lépp ci sutura kenn du xam kaa bi ki ko dund dañuy waxtaan rek bu ko defee Serigne Moustapha ci boppam ca njeexital ba te bu leen ko bàyyi ni ngeen ko jeexitalu émission ba incha allah dina leen ci indil ay émission dina leen ci xelal dina leen ci yoo xamante ni boo ko partagé ak ñun ba nga seetaan solution yooyu le doo réccu li nga xamante ni moo taxoon ngay partagé ak ñun sa kaa yooyu. tey nag cas bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee nekk kaa bu doy waar xam naa ni sax dingeen jàpp ni ñun ci maaman yi rek lañuy faral di waxtaan ci cas yi waaye demeewul noonu kenn ku ci nekk cas boo xamante ni moom nga woote joxe ko rek bu ñuy waxtaan dañ ciy daal di waxtaan ndax lépp ñëpp la ñëpp ko bokk. cas bi nag mu amati koo xamante ni xam naa ni yàlla dénk na ko tuuti xam-xam mu nekk koo xam ne day dugg ci kër yi di sàkku ndimbal. di ko may lekk di ko jàppale ci xaalis ay yére lu mu mën a doon rek lu mu fa fekk bu fekkee fekk na fa borom kër gi wala soxnaam di ko jàppale ci yu mel noonu mu nekk koo xamante ne fu ne lay dem buntu kër gu mu fëgg rek dafay wax li nga xamante ne moo ko tax a jóg boo ko mënee jàppale nga jàppale ko boo ko mënee gàntalit nga gàntal ko nit ki dina gàntal nit sax fekk bon taxul soxor taxul waaye àddina bu yàqu day tax mu ragal ba dootul accepté kenn ci biir këram te yu mel nii nga xamante ne mooy kaawu tey bi ñuy waxtaanee nda koy waral te ko nit nga yey ndax nit ki fi mu toll nii nit li dal sa xel rek ak li la doy loolu nga war di def surtout ki ngay dugal ci sa biir kër na nekk loo xam ne xool nga ko ba mu dal sa xel amaana sax mën ngaa xool mu dal sa xel nga entrer ko ci sa biir kër ndekete yoo posan la la nga xamante ne moom nga doon daw lépp mu ngi ci moom ñu wax ngeen moytu. doomu aadama yi nga xamante ni ñooy dugg ci seen kër di leen jox loxo ak di toog ak yéen ak di waxtaan ak yéen ak di naan dañ leen di seetal ak yeneen ak yeneen ndaw si nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee nekk na koo xam ne macha allah réglé na boppam regle njabootam toog këram ba koñ bi nga xamante ni foofu la dëkk sax dañ koy woowee tubaab bu ñuul ndax lan réglé gu mu réglé boppam ak njabootam bu rombee dina nuyoo bokkul natt demul tuur demul xew demul fenn. mi ngi toog rek ci biir këram nekk ak njabootam farata rek moo koy génnee mbaa mu dem ci lu mu war a dem mbaa mu am lu mu jënd ci boutique bi mu fekk sax jànkam bi nga xamante ne moom la yor ci kër gi wàcc wala yeneen mën nga nekk ci koñ bi toog une semaine doo gis ndaw si ndax maandu gu mu maandu ak yam gu mu yam ci boppam ak ndax ragal gu mu ragal yii nii xew ci àddina bi ndekete yoo yooyu dina ko fekk ba ci biir këram génnee ko fa defloo ko loo xamante ni àddina bi yépp dinañ seede ne kii de lii mu def